cent maanaam ñaar téeméer ak juróom fukk ci téeméer boo jël njiitu réew mi fàttali na itam ni mu yokkee xereñuk larme bi jaar ci ay école de formation ki institut yu mu taxawal waaye it ni mu yokkee seenub lim ci téeméer boo jël juróom benn fukk nataalub Macky muy demit lanu fekk ci le témoin journal bi ne jiite na bëccëgam bu mujj bun jagleel l'armée bi démb waaye fàttali na fa itam yokkute yi mu def ci budget défense rafet lu taxawaayu takk der yi wane it kóolute gi mu am ci l'armée bu Sénégal l'armée booba nag Macky ci le soleil ma nga naan lu leen defal doyul njëg loolaa tax ci enquête mu ne mu yokk budget bi diggante 2012 ak 2023 ci 250 pour cent yokku it li mu takk der yi ngir fexe ñu wër ndomb réew mi ba ñoŋal kaaraange askan waak seen moomeel Macky nag ba muy jeexal ak militaire ya nee na leen ki may wuutu déwén mooy jiite bi lépp bëccëg di leen sant ngeen di def laas ne lim defal l'armée ak ni doole Sénégal toll moom la Macky Sall doon wone démb ci bëccëg bi nu leen takk der yi waaye booba jamono source aa ngi mel ni ku naan ñu deru Sénégal nga yàqu nii cour de justice bu CEDEAO bépp dogal bu mu jël nguurug Sall gi da koy lànk doxal yéenekaay bi di fàttali mbiram Khalifa Sall Karim Wade ba ci Ousmane Sonko mii mujj tribune ne ko te loola lépp nag askan wu Sénégal dong ñoo cay ñàkk ndax Macky Sall jubluwul ci li muy def lu dul faagaagal képp ku mu jàpp ne mën ngaa yëngal nguuram gi journal bi ne bosu Ousmane Sonko bi nag moo gën a wone dëgg xar mu Macky Sall ak nguuram gi Ousmane Sonko mooma yor bi ne ca fukki fan ak juróom-ñaar weeru novembre ca cour suprême la ko waral mooy président Abdoulaye Ndiaye mii daa àtte woon mbir mi ba nuppi joxe ca xalaatam kon mënta dellu si di ko àttewaat waat mu bokkaat ca Les Échos ni ko loolaa waral ñu seppi ko ci àtte bi kay mujjee jiite booba lépp audience mooy premier président bu cour suprême source a ni dëgg la ba coow la baree la Ali Siré Ba premier président bu cour suprême ne mooy jiite booba lépp atte àtte ba nag source a nee na état bu Sénégal dana ca dikk fukki avocat avocat Ousmane Sonko bi bind seen tur ca cour ñu war a bokk ci layo bi soxal dabu gi agent judiciaire de l'état bëgg a dabu àtteb juge Sabassy Faye ma ne woon nan delloo Ousmane Sonko ci liste électorale yi Sonko mooma mel ni ku jaaxle moo fës ci xët gu njëkk Walf Quotidien journal bi daa jaaxle ci tekkaaral gi opposition bi nekkee ci coowal Ousmane Sonko ak DG coppite ya am ca Sénat ak processus électoral bi Sénat googa Vox Populi nee na Ayib Daffé mandataire Ousmane Sonko demati na fa démb moom Ayib tàyyeegut ndax bam secrétaire général ba kon Ayib Démb loxoy neen la génneetee ca Sénat waaye tey dana fa delluwaat Habib Sy moom coow lii lépp Macky Sall la joxoñ baram tuuma ne ko ñun soxlawunu leen lu dul nga doxal yoon yoon bi tribunal wax Sénat it wax ko critique dañu xamal ca boobale jamono ne yenn ci way politique candidat yi opposition bi rawatina waxtaan na nanu ba juboo ci seen biir fas yéene taxawal ab kuréel kuréel gu bëgg a jàkkaarloog Macky Sall ngir weñ loxoom ba mu amal élection yu leer nañ élection yi yu ñëpp di bokk journal boobaleb kuréel ñépp bokkuñu ñu ca ndax am na ñuñ ca seppi mooy ñu ñu njort ne danoo jege nguur ba nuppi di mbubboo opposition nguur googa l'info nee na ma ngay sàqi pexe ngir xeex mbëkk mi ci journal bi ministre de la jeunesse ma ngay wax programme bu nu nar a taxawal ngir mu suqali ndaw ñi saafara jafe-jafe yu nu nekkee la le quotidien yit yeggee ñu boobale programme mu tuddee grande offensive contre les départs yéene kaay bi ne ñay dem nag léegi soxna yaak xale ya sax ñoo ca far ëpp waral journal bi ne mbëkk maa ngay saxilaaf naaw jëm quotidien di xamal ni ab gaal bu yaboon ñetti téeméeri nit jëmoon bitim réew gàddaay la mujjee teeree àndaale ñaar ñu faatu libération ne ñaar ñooña kenn ki ab soxna la bu am fanweeri at am na it ñeneen ñu sonnoon ba yegg ci lool mujje nañ leen rawale l'hôpital bés bi la jour dugg ak ñun hôpital xool na ñuy fajee ñi lakk-lakk yu metti yi journal bi ne lakk yooya du yem sax ci ñoom daanaka seen dundu gépp lay lakk yeggee ñu ci ay seedeek yaakaar yu nu am ci centre des grands bi ñuy xaar ci Sénégal Sénégal daanu fi lakk-lakk yu metti at mu jot ñaar téeméer ya dañuy soxla ñu yóbbu leen réanimation ndax dañuy sonn lool Macky moom day sonal Amadou Bam da koy dimbali béeki u fardo wi laaj ci xëtam gu njëkk jëm ci élection présidentielle bi nu dëkkmal ak taxawaay président Macky ci kanam candidat am bi di premier ministre li waral laaj bi journal bi daa seetlu ni président Macky Sall taxawee ne da koy campagnal Amadou Ba jàppale ko lii Sud Quotidien nee na am nañu ca mën a gisee ne dara du soppeeku li fi Macky daan def doo nga fi fiy des te Macky mooma sax journal bi nee na daanaka fooratut ci réew mi élection locale ak législative yi nu weesu doy na ci firnde fuite yi am ci administration di yenn yuy senn te warta génn ci la l'observateur xëy sëgg gis ne mbir mu xóot la mu mën a itam salfaañe kaaraange gi lii nag bu amee journal bi nee na dafay wone ne wareefu noppi éthique ak déontologie ñiy liggéey ci administration sàmmonte wuñook moom te bu leeree ni ñoo def nag ay daan bi mën nanu koo ngi naan liñ bëgg a teg ci ndodd mairie bi Dakar attanu ko moom maire bi ma ngay fàttali ni ñetti milliards lan naroon a def ci ay bourse te fi mu ni romb nan ko di dem Barthélemy nee na social baax na waaye nag mairie bu Ndakaaru xam leen ne du croix rouge dafa war a investir Petrosen moom ma ngay gën di investir ci gaz bu Kayar offshore yéene kaay yu bari bokk ca le quotidien enquête ak Walf quotidien ñu ne gën naa dëgëral taxawaayam gannaaw ba BP demee ci la soleil ñu ñuy xamal ni taxawaay googa mën naa jóge ci fukk ci téeméer fanweer ak juróom ci téeméer boo jël di 35 pour cent réew mi quotidien ne nu jabet moom mi ngi def ay jéeya ndax yéeni kaay bi nee na téeméeri nit yu ndagg seen tànk juróom-ñaar fukk ya jabet a ko waral boole ci paj mu cher lool ama moom titre roi des arènes sore na ko lool gannaaw bi ko Modou loo daanee ci juróom fukki seconde ak ñaar sunu lamb moo gisee réew mi quotidien moom di nu yëgal ne lamb ji war a dox diggante mood Lo booy Boy Niang 2 Makan Mbeng régularisé na ko benn fan weeru janvier atum 2024 journal bi nee